monogamie par exemple yow nga nekk borom kër am ay doom déjà ci sa aawo dañ fi doon wax polygamie bu fekkee sa borom kër dafay takk ñaareel wala ñetteel est-ce que daf ko war a waxtaanee ay doomam doomam yi nga xam ne nekk nañ ay mag nekk ci biir kër gi parce que ñoom tamit rupture boobu dañ koy sentir ki nga xam ne da koy gis chaque jour bu fekkee da nga na toog chaque ñaari fan nga koy gis ba il faut que ñu expliquer la le pourquoi même bu nekkee xale parce qu'il va se poser maanaam est-ce que da war a yëgal say doom ni da ngay takk jabar da nga war a waxtaan ak ah, ñoom expliquer leen. ñëwul ci ñëwul ci alxuraan de man de du ma yëglu. alxuraan ah, waxul sax sa jabar jig sa aawo. nga ne ko damay takk jabar. du ma amul ci diine. yëglu neewuñu kenn booy takk deuxième femme. waxal sa aawo ni ko damay takk. xëy na nag rafet na. damay takk soxna. mu jeex. wala takk naa sànq. wala takk wala may nañ ma ci tàkkusaan. wala may nañ ma mu jeex parce que mag ñi dañu daan dund diine daan nga jékki-jékki daan nga jekki-jekki am ñu fëgg nga ubbi muy benn délégation ñu jiital xale bu jigéen ne ana néeg góor gi ñu ne mi ngi nii ñu dugal ko fa ñu ne dañ koo may soxna sa wujj bi ngay fekk si door a xam ni kon tey tey dama doon am wujj mais léegi génération bu mu xam nga xam nga xam nga Sophie Sophie Sophie yow ñeme wu lool lool yow. mais mais Sophie. yow ñeme woo lool yow oustaz. barke borom Tuubaa ak sama gi ñoo bàyyi ñeme woo lool yow. yow soo ko defee ni nga xeex sa loolu waaye boo ko essayé. Ah, ah, non non non xam nga xam nga. <laughs> ay boroomi 4-4 ñu ngi fi ñeme wuñu loolu ay boroomi compte bancaire amuñu fi <laughs> loolu barke borom Tuubaa ay boroomi 4-4 <laughs> dëkkee taaxum kaw yor ñetti soxna amuñu fitu laa <laughs> ilaaha illallaah ñëw rek na la kii la na kon crime am pare su fa crime amee yow yaay nekk responsable su ba crème amee suñu sottee ci palanteer bi génn daal di jóge jógee quatrième daanu daal di tàppi eh. ci ah yow yëpp am na ñu ñamee loolu mais ah, ah. comme l'islam nag néewu la nga nga yëgal sa soxna ni ko damay takk soxna sànkan mm-hmm. duma laa xale bi xale bi na ci kër gi waaw ah, mais est-ce xalaat xale boobu par rapport ak euh, répercussion bu muy am ci moom am na ñoo xam ne seen i parents ba ñuy tàq tàggali ko yëguñu leen yëgaluñu leen moo tax seen jàng sooxee moo tax amantuñu benn bànneex ci àdduna wala ñi nga xam ne seeni parent parents dañuy jékki-jékki rek takk ñaareel ñetteel sa doom même boo tàqalikoo ak yaayam booba nga war a gën a téye sa doom hmm. mais Sénégal li fi xew mooy fase jabar fase doom fase jigéen mu dem nga fasewaale ay doomam hmm. mooy doo leen hmm. am na ñoo xam ne tey doom yi nu yor ñooy yóbbu école ñooy fay njàng ñooy toppatoo ñooy jënd garab wala seen càmmiñe leen di dimbali parce que seen bàyyi ni mu ko abandonné moom ndaw si noonu la abandonné xale yi. Mm-hmm. te loolu du dëgg du yoon. déedéet say doom da ngay jël ci ñoom responsabilité te tey ñi fi abandonné seen doom ñëpp bu seen doom màggoon am teraanga ñooy wër naan sama doom la. yow faale woo ko woon ba muy mën a di mu dem ba mën foo toll ubbi sa gémmiñ gi sama doom la duma defal dara nangam nangam mais yaa ko njëkk a abandonné kon responsabilité boobu wuy jur yi nañ ci bàyyi xel. ki nga fase doom yi nga am ak moom téye ko xam ne say doom la. su ko yow. waaw téye ko. lu war ci sa digganteeg ñoom defal leen. mais foofu dafa am tuuti ñagas ñagas parce que la plupart bu papa jeeg yaay ji nekkee ensemble communication day manqué. c'est normal parce que ils sont ensemble doom yi duñu leen yëgal mais seetlu rek bu papa ji demee dëkk ci booram yaay ji dëkk ci booram communication day am yaay ji la ko saf lay wax doomam baay ji bu doom ji ñëwee ci moom moom ba ka neex lay bëgg jox doom ku ci nekk yaa ngi bëgg sa doom jox la bopp. gën laa jox nopp. loolu mooy doon problème bi instant boobu noonu communication bi day bëri sa bopp ba xale bi a fiyewu. parce que parce que léeg-léeg sax nga dégg am wayjur yi wax loolu. Mhm. sama doom ji daa gën a ànd ak yaayam. Mhm. daa gën a def nangam mais côté boobu nag lu ci ëpp ci bàyyi lay ëppee. parce que bàyyi souvent day fiir diggante yaay doom te nag yaay ak doom mënuñoo yem ci xol. Hmm. papa ak hmm. yem ci xolu doom. waaw maanaam. benn waaye dafa ñëw laaj kan moo war a gën a jege doom. sa yaay nga war a gën a bëgg. léegi su fekkee sa yaay sa diggante ak sa baay du la digal lenn lu dul ab safaan. waaw mais gisoo jigéen ñu mel noonu. am na. waaw léegi nag foofu. am na ñoo xam ne gis nga ci. déedéet dama lay laaj jàpp sa doom. di yëy ak boppam. père non mais ndigal ma eggalee. mais loolu ndigal ma kii sa doom la. yéen yéen waaw d'accord léegi wax leen merci. <laughs> kebbaab ma. ndax gerte ma de. Sophie Gueye mooy déyoo ak moom Sophie. Sophie mooy déyoo ak moom. bul ma bul ma man fii ñëpp xam nañ ne je ne suis pas à l'aise. soo duggee ci net bi sax dina dina dégg li ni wax. il faut lire les commentaires. maanaam kii ba fàtte naa la. dugal ci net bi nga lire commentaire nga dégg li ni wax. ah danga ma dégg ah moom tam li mu koy wax dégg nga ko bàyyi ko rek mu dem. Ah. nañ ko bàyyi je ne suis pas à l'aise mais man dama gëm sama bopp. nañ ko bàyyi yàlla nañ ko bàyyi yàlla nañ ko bàyyi yàlla mais fàtte naa li ma doon. ayca oustaz oustaz ñëwal wala wala wala Aminata Mbaye. mais père nag yow fi ngay génn comme dafa am solo waroo ko gaaw a fàtte. walaay dama man sama kii bu ñu dara dem leen nekk oustaz waaw mag laa xam ne day dem. Mhm. waaw xëy na am na faf su ma fa toogee. Mhm. hee cër bi ma jox. wallaay wallaay non cër boobu nag moom nga mérito foo mën a toog nag. moom lay am fu mu toog sax. waaw parce que yonent bi nee nag ki la féete kaw ki la féete mag jox ko cër bi mu yellool te cër boobu moom lañ la jox. dëgg la mais Sophie. Mhm. Euh, am na ñoo xam ne dañuy fase fase fase jigéen fase waale ay doomam. Mhm. mais beneen bi ci des comme li nga wax sànq. Mhm. xale bu ndaw nekk ci diggante papa ak yaay. kii naan la sa baay nangam. ping kii naan la sa yaay nangam. mais li ëpp nag du ñëpp mais li ëpp. yaaya naan doom sa papa nangam. li ëpp. yaay moo naan doom sa papa ji de toroxal na ma ba tàyyi sa papa ji nangam sa papa lim may def sa papa di wujju wi ma takkal bëgg maa toroxal doo nga tax sa papa nangam ak nangam côté boobu fa la ëppee. communication négative. xam nga xam nga oustaz des fois ah, euh, du du du yaay ji sax dafay wax ak doom ji. mais doom ji aussi dina dina dina remarquer tey. dina gis day gis yaay ji. Mhm. ni mu nekkee di souffrir. day gis yaay ji am ay changement xam nga je suis tout à fait d'accord ak yow diine indiwu ko fenn. Mhm. mais xam nga mag ñi bi ñu ñëwee dafa ne am na loo xamante ne euh, lu ngor maye. te li ngor maye duñ ko koo nangul mu ngi noonu am na loo xamante aussi tamit diine waxu ci waaye ngor maye woon na ko mhm. te mooy ba ñuy wax doom nawle la nga associé ko parce que da nga bëgg élargir famille bi kon nag associé si doom jooju ndax di nga aye ji mu toog ñaari fan yoo xamante ne du la teg bët nit ku nekk nit nga xale dina laaj an sama papa bu dee dafa am koo xam ne dafa sëy si kër gi dina gis keneen ku mu miin woon ci kër gi. maanaam diine dàqul lu rafet oustaz. mu ngi noonu oustaz mooy rafetal bi nga xam mooy associé bi nga koy associé. mais xam nga tàggoo ak yëgle bokkul. dëgg la waaw non du tàggoo tàggoo dafa am yëgle am. dëgg la yëgle d'accord naa ci. oustaz bii du sax yëgle mais waxtaan la. waxtaan waaw mais mais waxtaan. tàggoo ko yëgaloo ko mais waxtaan dafa waxtaan dafa war a am. voilà parce que yàlla def ni wa shaawirhum mu ngi doon même bu ñu gisee même oustaz te même bu ñu gisee jàngale jàngale yonant bi léppam c'était la communication ni mu doon waxtaan ak njabootam ni mu doon waxtaan ak soxnaam yi ni mu doon waxtaan ak sahaba mi kon kon moom dafa àggoon sax ba ci moom Seydina Muhammad bu xëyee suba sofi mooy dem marché mhm. voilà voilà mbaa yëg nga ni yonent bi moo daan dem marché voilà xam nga oustaz ñëw jël xaalis bi dem marché nduggal ay soxnaam indi ci modeste moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du def lu gaañ soxnaam wala bu doon jël soxna wala dara dina communiquer ak njabootam mais bu doon takk soxna it ay soxnaam taxaw ni ko du fi amee. loolu ah parce que soxna si yonent bi yi ah, soxna yi mais soxna yi soxna yonent bi lañ leen royloo. lu ñee defoon rek ñii war nañ koo accorder jaar ah, seen mais ki ñu royloo mën naa a mais parce que boo tàggoo jigéen ni ko damay damaa waxtaan ak jigéen ki damaa bëgg a moom doo ci am doo ci am wii bu rafet. waaw d'accord oustaz. léegi exemple la Sophie jox yaa ngi yar sa doom bu ndaw bu tudd Sophie ci kër. Mhm. nga koy xool mi ngi màgg nga xam ne sama doom bi dafa sensible lool lu ndaw lu nekk mën na koo affecté. nga koy dégg côté école parce que fi jox na la exemple bu am importance nga dem ba moom. yaayam nga fat ngeen nekk ci kër di sëy ay at yéen ñaar la xam amaana sax mu gën la jege sax ka ka ka yaayam nga xëy war a jël beneen soxna ndaxam diine dafa dàkk nga war a waxtaan ak doom jooju pour ne ko ah man de tey damay am beneen soxna te bu ñëwee famille bi du xaajaloo de mais parfois du sax bu ñëwee war naa dem foofu ñaari fan wala ñetti fan ngir cofeel bi nga am sa diggante ak sa njaboot boobu ndax foofu tamit rafetal boobu noonu. islam lan la ci wax. l'islam da cee d'accord cent pour cent. voilà loolu laa bëggoon xam. parce que mooy waajur bi mën na waxtaan ak waxtaan ak doomam parce que jamono sax bu dul xam nga Serigne Cheikh Tidiane si dafa waxoon. barki hmm. démb ni hmm. euh, doxee leen seen doxeenu jamono. voilà parce que jamono moo toll foofu sofi tey booy takk soxna xamal xale yi ni leen kat ah. takk naa soxna takk naa soxna Sophie mhm. mais nag bu ñëwee cir bi ngeen jox seen yaay jox leen ko ko. lu mën a xew respecté leen ko jàppee leen ko comme seen yaay ji leen jur. parce que léeg-léeg nga takk soxna bu xale bi xawee tolloog soxna si kiy ñëw. Mhm. pour mu respecté ko day jafe. da koy def moroom te itam kiy ñëwit da koy wan ni duma ak yow mag sa baay la. Mm-hmm. te loolu it du ne xale bi. Mm-hmm. moo tax yépp soxna si wax waxtaan la. mais mm-hmm. ku ci nekk ñu wax la li nga xam ne moom mooy sa cër. am na ci benn boo xamante ne xëy na am na ay famille yu mu dal ba mu indi ci problème. mooy que xale bi daan àndal nekk xaritam mu xëy góor gi takk ko. bëri na xëy na kooku bëtu xarit bi mu doon xoolee xaritam ba xëy suba war a mën a gis. loolu moom xam nga ko kooku tey bu sa njaboot tasee yaa ko tas. dëgg la. donc ci ci ci côté yooyu sax ba ci fànna yooyu ah jar nañu leeralal nit ñi lislaam ci condition ak critères yi nga xamante ne ci la ñuy takkee ndax am na loo xamante ne aussi tamit bés boo ci duggee ba mu jeex takk rek l'islam dala ci fekk si de. nga ah, kooku nag boo xooleen dara. waaw mais mais xam nga comme. araamu la la waa araamu la araamu la de. araamu la. dafa rafetul rek. dagan na la. Mhm. mën nga koo takk. mais comme li mu wax sànq sama sëriñ sëñ kër si daf daan wax ni bari na lu diine nangu. ngor ngor nanguwu ko xam nga soo fi takk sa jabaru ndijaay jum fase lislaam lislaam terewu ko de <laughs> <laughs> sa nijaay sa nijaay bàyyi nga jël xam nga dara nekku ci ci lislaam mais tey boo ko defoon damay ragal suba ay Aïdara buy revue de presse boole la ci mm-hmm. léegi nag loolu mooy tax loolu mooy tax dañuy bëgg ku nekk rek la yàlla waxoon mm-hmm. xoolal ki nga méngool nga takk ko su fi kenn mënta dund sa jamono ñaari yoon ki nga méngul yàlla def ni azzaaniyatu azzaani laa yan azzaaniyatu laa yankixuha illa zaanin yàlla nee na njaalookat bu jigéen bu ngeen xamee ni jigéen jii du teye boppam njaalookat la bis bu ngeen koy wutal jëkkër wutal leen ko copain njaalookat ñu ànd di comme moom. Hmm. naankatu sàngara bi bu tollee ci war a takk jabar nañ ko wutal jigéen ji dàq naan ci koñ bi mu takk ko. Mm-hmm. pour ñoom ñaar bu ñu jëndee biteel coow du jub kii day naan genn wàll gi jox ko mu àggale ko. dañuy mën a communiquer Sophie <laughs> xam nga tey di tux cigarette takk jabar jiy tux cigarette boo xëccee mu aj mu xëcc aj jox la néeg bi day bari saxaar rek. mais du ngeen xuloo ci xëccal bu baax ak mënoo xëccëg ni nga koy xëccee du noonu yàlla dafa bëgg ñi mën a ànd ñu leen di boole ñuy ànd mais xam nga tey dem ba am yenn at yi par exemple Père Mbaye sa doom bu jigéen am xaritam di jàngoo ndoog xaritam bi di wàcc di ñëw ci kër gi nga nga nga nga maanaam xale bi jàpp ni moom xaritam bii mu lay présenté yow bàyyi ji da nga koy def comme mm-hmm. moom mi nga jur mm-hmm. ndekete yow yaa ngi xoolee xale bi beneen bët du xaraamul de. Mm-hmm. mais mënoon naa gën a rafet. mënoon naa gën a rafet. père ba ñu lool de oustaz. waaw mais déggoo li ma wax xaraamul. Mm-hmm. avant tout xaramul l'islam terewu ko mais nag xamal ni boo ko defee am na leneen lum gën a mën a yàq. maanaam ah. li muy yàq mu ëpp li muy defar dëgg la oustaz. te problème bi mooy su fi. Mm-hmm. mag nga. am na mag ñu fi nekk. amagunu amagunu borom kër. yaa ñoo ma tolloo at. mais jëlal ci ñooñu la maire ba waxoon doom yi dañoo ñëw ni ko comme sunu papa génn na àdduna bu ñu sañoon daal nga woo jaamu yàlla rek te muñ mag mi toog ba mu yàgg mënu ko muñ mu ne xale yi ah bu ma amoon mag mu sérieux day du ci yàq dara waaye parce que xam na ni moom mag mu sérieux la mën a composé uh-huh. parce que ku nekk li alxuraan naan kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun ku nekk rek équipe bi nga bokk ngay football man daal loolu laa gën a rafetlu ko xool xale boo xam ni mook sa doom ñooy ànd. moo gën a rafet sax bëtu bàyyi la lay xoolee. Ah, nga fexe ba corrompe ko wala nga tuur ko xaalis pour takk ko. Mhm. moo gën a rafet sax maanaam foofu ci takk gu ne ngay wax jaaduwul ci mag. déggoo li ma wax xanaa déet damay laaj. yéen ñëpp yéen a may déglu ab ustaas la man ab doxkat la dégg ngeen ni mu waxee ni ngeen seetaan naa de division bi <laughs> nee na jékkul ci am mag moo xam ne dem na ba. takk ndaw ci corrompre ko ci xaalis wala leen ma laaj ko ne ko ah. kon maanaam takk gune <laughs> dafa jaadu jaaduwut nga ne woon père samay wax day leer man kay rédivision bi yéen ñëpp seetaan leen ba tey question bi ma ko posé ndax mag mu takk gune dafa jaadu wala jaadu mais père rédiviser lu passé koy def ah kay dama ne pour yow doon leen xoolaat xolaat ni ma la posé doon koy xoolaat oustaz nga man damaa dox dama lay laaj dama ne waaw père rediviser bàyyi mbay. na nanu ñëw ci kii bi loolu nan ko bàyyi. redivision pour nu xam yow. li nga wax li ma wax. dama lay laaj dama ne mag mu takk gune. dama lay leeralal dama lay dama lay leeralal. léegi mag mu takk gune. waaw may ma ñëw. waaw léegi mag mu takk gune. non danga may may ma ñëw. non man soo ma tontuwul lii du ma mën a. nangu ndax du ngeen nangu ma wax ak yéen. gis nga ñaari gune yi ni ma def léegi. daf may tontu rek question réponse. non balaa ma laa tontu question réponse. non du ma la tontu. waaw kon baax na. <laughs> su fa duggee daanu de. du yor. mag bu ne du takk gone. Mm. rasulilah aleyhi salaatu wa salaam. mag ma mu takkoon te mu mag. mais Sophie lan laa wax. Mm-hmm. takk xale ah, xaraam yow nga doo wax. mais ah, noppi man uh-huh. mais nee nga doo wax. bàyyi ma ma exprimé wu. ma demaat nga daggaat ma. bàyyi ndax rasulilah aleyhi salaatu wa salaam. bàyyi sunu borom da ko fayee gune tuuti. Mm-hmm. ndax ka ko magoon. te mu jël ko. Sophie ka ko magoon muy xadijatu mu nangoo ànd ak moom ca jamono yoo nga xam ne. c'était dans les moments mais loolu mais loolu loolu da koy wax da koy wax ku ko jàppul. waaw léegi oustaz da nga may euh, déglu papa nañu déglu man nga joxoon kàddu. man nga joxoon kàddu soo ma nee noppil ma noppi. non dañ ko laaj man nga jox da koy may mu tontu après nga ñëwaat. non non nanguwul tontu. oustaz oustaz non dina tontu loolu la lan la dama tontu dama ko bëgg a leeral benn affaire. Hmm. li muy wax ci yonent bi ak Khadija. non non mhm. waxuñu foofu de dama la laaj. nga ne ak jabar déedéet parce que fii ak waxu ma ko. du tëb loolu fii laa la wax àddina fii ngeen déglu. li ma ko laaj mooy dafa ne mag. du takk hmm. gune loolu la wax. loolu laa ko waaw ma laaj ko ne ndax. màgg dafa war sa takku gune. ok mu ne waxuñu la ngay jël xaalis di ko korom ak di ko xëpp. d'accord léegi nañ ko déglu nañ ko déglu foofu laa laaj. ayca bala muy tëb di ñëw. soo fi man fi may tàmbalee samay wax. Uh-huh. moom mënta wax ba man duma fa tàmbalee. ayca. Ah. li muy li muy wax moom. de l'injustice. ci diggante Khadija ak yonent bi. Eh, yaa ngi dégg Sophie c'est au dernier moment. moom heure bi mu njëkk def sax mooy moom xamul ni Khadija moom ak yonent bi. moom laa la wax xadija moo mag yonent xadija moo ko magee 15 ans. moo tax sunu borom fayee ko Aïcha. man fi may ñëw. moo tax sunu borom fayee ko Aïcha. waaw waaw nañ déglu woon tey d'accord. li ma la je xam nga man Sophie. nangu nga mu ko nangu woon jël te mu mag ko moo tax sunu borom fayee ko jabar ju tuuti muy Aïcha. dama laa déglu nga wax boo ko ah damaa mën damaa dox. waaw mais damaa dox. loo dox dox dox dox dox. sa dox mënta soppi li yàlla bind. man xam-xam laay wax li yàlla wax laa lay wax. waaw mais xam-xam boo mënta àndal li àdduna. waaw sa xam-xam bu tegoo alquran tegu sa wax day seey. maa la day seey. mais yow waxagoo fi lu mën a randal samay wax. waaw mais da nga may déglu. ah yow kay ci li ma la wax kay ba mu say wax du tey man waxu yàlla laa lay wax. Ah, sama yan wax xalaat sama yan wax xalaat man su li ma koy wax du mhm. xalaat. Mhm. du du du damaa dox du damaa fekkee man. man li ma la wax laa ne su lislaam ñëwee mënu koo dindi bi laa lay wax. dama la wax sànq ni la. wàññiwul dara mag mu takk jabari xale wàññiwul dara. <laughs> wàññiwul dara su fi man li ma wax leer. takk xale xaraamul. Mhm. waxuma araam de wàññi laa. waaw mais wax ah, euh, oh. ah mu déroulé tamit nañ ko bàyyi mu ngeen ngeen comprendre ante xam nga takk xale xaraamul mhm. li ma wax dafa leer naññe takk xale xaraamul man fii soxna si laajee laa ko tontoo dama ni ko am sa doom bu jigéen mu am xaritam comme li mu wax di ànd ak koo xam ni ñoom ñaara bokk classe di ñëw ci kër gi heure bu ñëwee nuyu la sa doom jàpp ni bët bi nga koy xoolee muy bëtu doom moom ngay xoolee xaritam bi nga jékki-jékki takk xaritam bi xaraamul mais dama ni man rafetluwuma ko. mais néew ma takk xale daa xaraam. oustaz takk xale kenn waru koo def. xaraamul waaye ku ne da nga takk sa mas yow papa amul xale amul takk sa mas. ak Sofia Diatta. naa man nag man taalibe Sëñ Tuubaa dama koy dëggal. dëgg am ci fit ci li may def. Mhm. gis naa ko takkal baayam soxna. moromam mu daan àndal. Mhm. su fekkente ne amul yàlla bu ma am dara ci sëñ Modou Habib. Mhm. man nag taalibe sëñ Touba laa te moom laa te fi ma taxaw kenn mënu ma fi jëlee gis naa ko takkal baayam soxnaam te ab xaritama. Mhm. ka mu may baayam barka tuba Touba. waaw jeex na. après mu jeex ko xeeb doy ah. yaa ngi dugg ci peer baax na nañ jël téléspectateurs yi papa ma bàyyi la nga jël ñaar ba ñett parce que li ñu dese si ay simili euh, bëriwul jëlal téléspectateurs yi non damay gànnale oustaz damay gànnale oustaz jëlal dama lay gànnale <laughs> ay jël oustaz jëlal salaamaaleykum dama koy gànnale <laughs> way jooy salaamaaleykum 88 628 89 90 ci ci régie bi da nga di nelaw ay te dox leen oustaz allo salaamaaleykum allo maaleykum salaam sang bi ñu ngi lay ziar waay yal na yàlla nangu. baa yaa ngi ci jàmm rek. alhamdulilah. da ngaa loo bëgg a contribuer ci émission bi. waaw dama bëgg a participer ci émission bi tuuti. bisimilah. allo salaamaaleykum. Euh, man de maa ngi rafetlu émission bi. tey li ma ciy gën a rafetlu sax mooy waxtaan bi ni mu daan demee tout le temps ku nekk di indi ay avis baax na trop waaye da ngeen indiwaale koo xam ne bu ñuy wax ci côté diine bi dina leen mën a wax li yàlla wax. Mhm. man nag li ma ciy participer rek. Euh, maa ngi koy jëmale ci oustaz oustaz sànq dañoo kontaan ñu ngay ramener affaire yi waaye nag yenn saay sénégalais ñoo doxe noonu ñooy bëgg a indi loo xam ne la yàlla wax dañ koy jël maslaa ko ko fa mu leen neex sànq wax nañ ko bi ngay wax caan ci affaire miraas bi foofu sama xel dafa dem ci yàlla bu mu naan bu ngeen di seede wala ngeen di aat na ngeen fàtte ni ñi ngeen di wax man naa leen gën a ñoom yaa ayyuhal lazina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada lillahi ba mu jeex mu ne in yakun aniyan aw faqiran laa awla bihima léegi tam ngeen di wax ci kii euh, ni ngay ramener affaire yi baax na ñu rafetlu sa xam-xam mhm. waaye na nga may ñu dugal la ci ay question piège parce que ñun ak ñi jàng ak xale yooyu dañu am nu ñuy tourner affaire yi ba nga dafa dootuñu xam ne li yàlla wax ak li nga xam ne mooy li mu tere ak li nga xam ne mooy li rafet ak li naan ngor bañu ko et cetera. ñun suñu culture bu ñu nee lii diine nangu na ko waaye ngor bañu ko ki ko def am na ci droit ndegam yàllaa ko ko permettre kon nag xëy na foofu li nga wax la islaam daf gëm nekk euh, bu mu nekkee gëm mu nekk euh, jëf nekk euh, ragal yàlla nekk nekk tamit ixsaan et cetera. waaye li nal moom munoo ko tourner ba nit def ko nga wax ci coobareem ba tere ko ko waxuma da nga tere de déedéet waaye dama ni sa question piège yooyu ñoo dëgg naan la doom bi li leen njëkk waroon di ko wax mooy xale bu ñu yar yar ko fañ ko war a yaree dëgg la su bàyyam di wax ak moom ak yaayam dina xam fa mu yem ca ma war a yem ñoom ndax seen bàyyi ak seen bu ñuy tàggoo bu ñu leen laaj bu tax ngeen tàggoo te boobaa mën nañ leen yar mën nañ leen gérer mën nañ leen ménager cetera mais kenn du toog fii di imposer bàyyi bi naan ko nii ci lii ci loo xam ne islam wax ko ci loo xam ne doom dafa war a xam bàyyam yare fañ ko war a yare li ma bëgg a wax foofu rek mooy ni rafetlu naa ni ngeen di defee question bi mais question yi père di posé mhm. na ko comprendre moom aussi yéen comme il est tout le temps en en avec les autres buggul yenn saa yi ñu duggul ci